ñii ñooy promoteuru làmb ñii yéen ñii yéen daaneel làmb ci ñii ñooy promoteur yi ñii. kañ de fi mu toll nii wax Sidi Diop la fi wax waxul waxi làmb de. waaye yow kañ nekkatul promoteur. bon yow loo wax. ah père nuyu naa la. fay naa la. yaa ngi jàmm. sant yàlla. dama dégg ci ECHO Modou Lo Ama Baldé dafa taxaw. a ah, booy. booy yooyu nga man a laaj. déedéet damay laaj rek dama bëgg xam. loolu booy yu xaw ma ci dara. ngi si ci làmb PBK ma gis grand contre petit bi xale yu jógte ko loo wax ci grand contre petit bi. mais mais mooy tax làmb ubbeeku Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye Boy Niang Boy Niang Gris foofu grand grand la. ama Sène Tapha Tine Guy gi Tapha Sène Eumeu Sène Guy gi Guy gi Tapha Tine wala Lac de wala Gris Bordeaux ñett ñooñu ñoo war a bëri ci seen biir loolu daal booy mooy neexal lamb